yeg El Hadj Ahmed Aidara bismillah école yaa ngay waaj a tijji dee sinistre yi nga xam ne ñoo fa ne ndax inondation yi war a génn konte l'école ya nguur ga daal ni ay baas di ay tànt kon la leen di indil tribune yéene kaay ne ñoom sinistre yoo jee bëgguñu kon tàntu mbay njaay yi bëgguñu baasu mbay njaay yi dégg nga ca école Cerno Salif Ndongo gee ca juddu caaroy kaw ah maanaam wàllum baas di ay mbirum tànt daal boo ko fa waxee am na ca ay sinistre yoo xam ne kon dañuy mer ba maara di taali Yaasin Jeen ay tànt di ay baas di baas ëllëg bëgguñu ay tànt ginnaaw ëllëg bëgguñu ko daal 2005 waaw ñin daal lu ne gis nañ ko kon ci biir baas yi ci biir tante yi nga xam ne kon moom lañ ñu defaraloon fii di mbaar gis nañ fi ay xale jigéen yoo xam ne kon a nañ yeneen xale jigéen leen a ëmbal wann gis nañ fi tamit ay xale yoo xam ne dañoo bàyyi seen njàng mujj kon soppeeku doon ay wuyu daa ay délinquant laa ilaha illallah te gis nga baas yoo yee kenn mënu koo maîtriser maa la wax lii te nag loo ca xamul mooy da yor sa yar ko ci siraatal mustaqim waaye lu may bañ a tudd daal kilifa yi nag fi nekk nii la ñu war a def daal mooy indi kon ab saafara soo xam ni day ci wàllum inondation yi le soleil yéene kay ne kilifa yi day looloo taxoon ñu daje ni ki démb ah waaw waaw ba pare nag taxawal ab programme goo xam ni fii ak fukki atu yàlla lañ ko nam ma kon lal lu ci tolloog juróom-ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ci ay milliards réew mi quotidien ne ne Abdoul Mbaye day mooy premier ministre bi nga xam ne kon moo gën a télé incompétent bi Sénégal kon amee indépendance ak léegi ni fa njiital leeral askan wi ne en ah, kay yow xanaa xamoo ne Sénat bi dindi bi nga xam ne kon maanaam ñu ngi ko fi dindi nii du wàllum bëgg sa réew c'est pas vrai du mbirum patriotisme dégg ñaar fukki milliards yi nga xam ne nee na ñoo oh, yaay moom la ñuy ronqi xawma lan ci wàll dindi bi nga xam ne kon dindi nañ ko fi ci Sénat bi yow loolee daa mënal sax genn wàllu tëng géej gee ci mbirum assainissement mënalu leen ko dégg nga kon feneen la ne Omar ca a xalaat daal mooy daal nañ ko war a defee kon ba mu bakkane tribune yéene président ba day dee na congrès ba kon mujj na koo jébbal boroomam waa parti démocratique sénégalais geddi nañu Modou Diagne Fadaane ñoo tey geddi laa la wax parce que Macky Sall mii loxoom kon la jël daal di koy dugal ci penc ndaw réew ma te loolee kon du dëgg du yoon di wàllum législatif bi c'est illégal du dëgg du yoon le populaire ne ñetti banqaas Abdoulaye Wade di institution ya nañ leen kon seen boroom rob nañ leen dee nañu dindi nañ fi kon sénat bi sénat ba dee na vice présidence ba dee na conseil économique et social dee na ca jamono joo jaye tribunal ba day woon na ba pare di jax-jaxi le quotidien yéene kay ne ay mbirum x lañ fa doon waxtaanee di x x maanaam ah waaw yow ma ni wàllum sëy rek góor waw ay waaw waaw ay kàddu Cheikh Yérim Seck ak ay Aïssata Tall yoo xam ni kon maara day taali laa ilaha illallah enquête yéene kay ne jaanama kay moo mujj wàcc ci kaw Cheikh Yérim Seck ak ay Aïssatou Mile wàllum sexe i awra góor ak jigéen deret mu yéen ak réccu goo xam ne maar day taali kon ca tribunal ba direct info yuuxu bi nga xam ne kon xale bu jigéen bi yuuxu na ko ak xale bu jigéen bi ci boppam di sa tataal mii ba mu dawee kon dugg ca douze ak ay liggéeyee ca hôtel ba kon loxo ba nga xam ne kon dugal na ko ca mbir yi daal ñoo gën a dugal kon Cheikh Yérim Seck ni ruba moom Cheikh Yérim Seck moom mais ci tribune yéene kaay nee na li mu xalaat daal mooy jote bi nga xam ne kon jote na ko xale bu jigéen boobu bee relation sexuelle ba waaw lu normal la la ilaha illallah ah waaw waaw Cheikh Yérim Seck ne xamoo leen ne mbir mi buy dikk day dikk rek quand ça arrive cela arrive naturellement oh Cheikh Yérim ne xale bi ci boppam moo waxul woon dara jéemu la bañ xosi wu ma même bu dee sax am na ay wex ba ma xuma ka ma xuma dafa ma dara kon nag man Cheikh Yérim mi violé wu ma Aïssata Tall mi lay Aïssata Tall ne Cheikh Yérim ci boppam kon moo ma téye bés ma te moo ni xamaloon naa ko bu yàgg ne ko wàllum sexe daal ay mbirum awra indiwu ma fii ci ay Aïssata yemu ca ndaxte nee na Cheikh Yérim ci boppam moo ma bés ci kaw lal bi ay loxoom samay kaw mbagg wàccee dooleem ji ci man Aïssata yemu ca doomu magistrat bi ne man sama xale sama ndaw yëpp musuma te samay waajur mën nañ maa seede xaw ma sax booy xeex nan ngay góorgóorloo wala bu ñu lay néewal doole nan ngay góorgóorloo ba génn ca waaye su doon yor naa kattan Cheikh Yérim li ma def nii du ma ko bàyyi kon kaw Walf Grand Place ne Cheikh Yérim day dañu koo simmi ca tribunal ba démb ba mu set ah saaga ko tuutil ko te avocat yi ñoo def lu ni mel maître Camaran ne Cheikh Yérim daal altine yi ak alxames yi day woor yeneen jours yi muy tëddee xale yi jigéen yi i di leen violé Souleymane Ndéné Ndiaye ma ko doon layool daa mujj daw mujj bàyyi bàyyeeguñu nee na moom Cheikh Yérim danañ ko tëj kon ñetti atu yàlla xoolal ma règlement de compte bi le populaire ne règlement de compte woo xam ne wàllum xar fa fuufa kon lañu ko lal di mbiru mystique ca diwaanu gee ñetti ci ay notable lébu yoo xam ne daal ay bopp mbaam xuux lañ leen ragal daal indil leen ko fa maam Moussa Ndoye ne li ñu bëgg daal mooy jëlee ñu ci yorinu suuf gi di gestion foncière bi fii ci Ouakam Ousmane Ndiaye ne ñi def lii bëgguñu lu dul a waaye yow alaaji Malick Gakou mi def boppam ministre de la lutte te ministre sport la te Sénégal gii la fi mës a tuumaal nag ministre yi fi jaar yëpp mooy daanaka ministre football rek waaye alaaji Malick Gakou mi daal boo sàgganee danañu fi gis ab ministre de la lutte ministre boo xam ne yow ci wàllu làmb kese nga yëngu mais loolee ñëpp ci teg seen bët alaaji Malick Gakou ngi bëgg a ëppal nag ak làmb ji lee yow ab ministre boo xam ne chaque jour ñu ngi la gis rek ngay jéem a ay mbirub làmb yoo xam ni maanaam ñuy yëngu ci wàllum privé bi seen intérêt yu bopp leen tax a jóg te yow bi daanaka ay jafe-jafe yu bare bari kon lañ ci nimiku di wàllum sport bi alaaji Malick Gakou kay mën naa jël sax kenn koo xam ne ku ko jege la mu dem doxal ko ci diggante promoteur yii ak waa CNG yi nga xam ne ñu ngi mel ni ay xale yëfu xale la waaja ja aéroport def de le quotidien yéene kay ne waa ji daal yuuxu na wëllu ne ab bomb mi ngi waaja tàkk kon ci benn roppalaan Royal Air Maroc libération yéene kay ne ku leen ko wax dee doo leen ko gëm ah waaye waa ji fiir na genn xeetu fiiraange goo xam ne lii feebar la ci jabaram maa la wax lii bañ jabar ji tukki daal moo tax ba Cheikh Sow mii daal di sos inventé fa ab histoire woo xam ni na ab bomba ngi waaj a tàkk ci aéroport Dakar gi tool bi kon mel ni tulleeg ma le <laughs> ñaw fekk jabar jala bañ mu tukki mu yéen <laughs> waa alaaji lii moom